jërë ngeen jëf mbokk internet yu wasaare société ñoo ngi di nuyu baax a baax di leen ziar di am mbégte ak kontaante comme ñu koy defee chaque chaque jour waaye tey fii boo fa gisee nu mel nii nga xam ne ñu naqar lañ fi am ci semence zinc nekk fii si Pikine lakk bi nga xam ne nii am na fi démb gannaaw ba 3 heures du matin jotee ba léegi nii fu mu toll nii la sapeur amoon na si marché bi wàllu ndox wàll yi nga xam ne nii pour ñu dugg fi c'est tout un problème loolu yëpp waral marché bi lakk-lakk bi nga xam ne nii ñu bëri tamit ñàkk nañ ay marchandises lu ko waral ñu bëri suñu ay kàddu yu dañ def fexetu ba tàll leen suñu ay micro ñu laaj leen lakk bi la moo ko waral dëgg-dëgg. boo koy internet yi wasaare ñoo ngi taxaw euh, benn waay bi nga xam ne nii peut-être moo fi dëkk te fekkee ne yi fee salaamaaleykum sëñ bi. waaw maaleykum salaam maa ngi leen di fay. tur bi naka la. man Babacar Niang laa tudd Babacar Niang Tàcc. Babacar Niang Tàcc est-ce que tey mën nga ñu wax euh, maanaam lakk bi nga xam ne am na fii si Mate Zeng waa lakk bi nag bon man euh, fekku euh, fekk na boobu maa ngi nelaw mais bi ñu ma woowee ay trois heures du matin ci laa ñëw mais ci laa ñëw xool constaté dégâts yi mais biir marché moo doon lakk mooy marché cuuraay bi ak marché légume bi mais dama jàpp ne lakk bi man dama gis ne bon euh, dama gis ne lakk bi kii la daal maanaam ni ma ko mën a waxee mooy maanaam dafa nekk loo xam ne tey. Euh, man autorité yi laay condamné parce que lu tax man la autorité yi laay condamné euh, gis nga marché bi euh, am na fi ay années maire bi ne dafa bëgg a defar marché bi mais moom côté boobu la waroon dem defar parce que marché bi la marché est bien organisé boo xoolee ci kaw tali bi maanaam ci kaw tali bi yëpp ay cantine la mais bi marché ay zinc la ay barak foofu moo lakk yaakaar naa projet bi foofu la woon. mais ñoom li ñuy def mooy dañuy bàyyi ba élection jot ñu ñëw woo quelques délégués may leen ay ay paquetu seng ne leen bon defaraat leen marché bi xam nga capp capal mais loolu mooy indi dégâts maire le maire a un budget de huit cent millions. Pikine Nord le maire a de huit cent millions war na ci mën a defar óolu marché bi maanaam biir marché jën bu may wax óol bi damay wax mooy marché jën ak euh, marché légumes ak marché bi ñuy jaayee cuuraay yi maire bi war na mën a defar foofu waaw. man moo. mais est-ce que maire bi su amee responsabilité maanaam commerçant yi tamit amuñu si benn responsabilité. waaw commerçant yi am nañ ci am nañ ci benn benn benn responsabilité. commerçant am nañ ci responsabilité parce que man dama jàpp ne peut-être euh, euh, peut-être euh, branchement clandestin yi moo ko lakk parce que heure boobu amul koo xam ne di nga war a a dugg ci marché bi yor yor safara wala yor cigarette wala dara comprendre nga ah? di lakk marché bi loolu mënul am man dama jàpp ne branchement clandestin yi moo lakk moo lakk marché bi mais comme mooy ay may ma fiil fii cappal ma fii affaire yooyu mais foofu noonu ma lay wax noonu fii lakk foofu dañ ko war a defar defar bi gis nañ fi élection yi passé comprendre nga baa li ma la wax euh, ñu ne woy maire indi na fi ay paquetu seng woy nañ daajaat marché bi nangam nangam peut-être yi peut-être loolu defarul marché politiser marché bi génn teewul dañ ko fay duma duma yi métti ci élection yi comprendre nga baax li ma la wax ça veut dire que mooy Pikine ci boppam dañoo yeewu les Pikinois sont matures comprendre nga marché bi ku ko bëgg defar biir marché ngay defar fo dégâts bi am foofu la ñuy defar foofu mooy problème bi mais des fois dañoo gis à chaque fois lii day am si yenn marché du marché Pikine bi kese mais des fois gis maire bu jógee ne la defar marché commerçant yi ñoom bañ parce que bu ñu nee dem leen yeneen lieu dañuy bañ parce que ñoom jàpp nañu fi ñu toog rek foofu rek la ñu mën waaw mais ñun de du ñu bii marché bii mairie bi amoon na intention pour defar ko mais fa mu bëgg defar dafa bëggoon a yàqal commerçant yi ndax foofu fekk na commerçant yi defar ko ba mu baax karole defar fa defar fa lépp bu mu baax foofu la bëggoon a defar. mais est amoon na sécurité caro ak sécurité ça fait. non mooy fii ci kaw tali bi. fi amul benn problème fi am problème mooy óolu marché ba ca biir mooy fa ma lay wax fa falak foofu moo am problème mais fii amul problème foofu la war a defar waaw kay foofu la war a defar waaw moo am tamit marché bi am ay sortie parce que marché bi xat na xataay boo xam ne marché bi dafa war am ay sorti tey gis nañ peut-être xëy na tey marché bi bu amoon ay buntu xëy na de lakk bi du dégâts bi du du du kiyee noonu waaw. loolu laa amoon lu may wax. asalaamaaleykum sëñ bi. maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay. naka la. Mor Anta Diop la euh, nekk euh, responsable euh, Déthié président Déthié Fall nekk PRP nekk fekk sama naataango ki nga xam ni di sama mag di sama lépp muy tàcc nekkal fi tamit Pastef moom waaw. est-ce que lii c'est la première fois muy am si marché bi lakk-lakk. waaw ñoo ngi ko fii doog dégg nag ndax. Pape Mars Zeng bariwul li nga xam ne si euh, day faral di lakk wax dëgg yàlla ndax nit ki moom lu mu metti métti rek euh, da ngay wax li nga xam ne loolu am waaye ñun tey ji lakk bi euh, ay 4 heures du matin la ñu yee ni mars bi mu ngi mu ngi mu ngi tàkk de imaginer le 4 heures matin ba heure bii nii léegi lañ koy doog a fay mais imaginer Mars Zeng li muy génn ci alal Mars Zeng tolluwaayam ci Sénégal nga xam ne bokk na ci mars yi gën a mag ci Sénégal ah? événement bi rek ba mu mujjee passé ba mu jeexee ni ba nii li gis nga tali bi kenn defaru ko kenn defarul mbalit yi mbalit yaa ngi fi ba tey mais lu tolloog marché Zeng oolu marché Zeng di takk nga xam ni falal la waa cuuraay nekk fa la waa lujum nekk ci digg bi mooy mooy mooy xolu marché Zeng tey jii dama ciy joxoñ baaraam la maire Amadou Diarra tey 800 millions yi nga xam ne si dañ ko koy voteel moom ci boppam moom moo war a jël euh, foofu noonu réfectionné ko mën na am fonds mën na ko jël def ko fi. mais di ay ruq-ruqaan gars yi di branché yoo xam ne si kenn xamu ko doo marché boo ci dee dugg sax wala da ngay da ngay xaj-xaj loo moo loolu moo waral sapeur ba mu ñëwee euh, mënuñoo fexe ba fay ba fay lakk bi parce que amuñu fu ñu jaar moom ci boppam moo ko war a moom moom lañ moom moom moom mooy premier magistrat au niveau commune Pikine Nord moom Amadou Diarra man moom laay joxal joxañ loxo man en tant que Mor Anta Diop moom laay joxañ loxo moom ci boppam mu defar fii réfectionné ko ci 800 millions yi nga xam ne si moom lañ koy moom lañ koy voteel voilà mais mën nañu wax ni du moom rek mooy fautif bi parce que tamit euh, commerçant yi nga xamante ni ñoo ngi si biir marché bi ñoom tamit am na si benn part responsabilité bu ñu xoolee euh, maanaam yenn kii ñuy def maanaam branchement clandestin yi boo xoolee ba moytu tey jii moo waral li de lakk bi. donc ça veut dire que xam nga xam nga exact nag euh, li lakk marché bi li lakk marché bi exact man mënu maa xam exact lan moo ko lakk mais li ma li ma mën a xamal rek man kenn rek laay joxoñ baaraam muy premier magistrat au commune Pikine Nord. parce que marché bi moom moo moom mooy kilifa yi euh, délégué de quartier yi kilifa imam yi kilifa ñi ñi yeewoo commune Pikine Nord yëpp ñoo ko moom lañ géré mu jox ko boole ko trésor boole ko préfet boole ko ay conseil municipal moom mooy maire bi moom moo war a jël huit cent millions yi ñu koy voté par an mu ñëw réfectionné marché Zeng. defar na marché Zeng xanaa du fépp la defar mais. non non amul dara lu fi defar amul dara loo xam ne defar na ko marché Zeng amul. amul nee naa la ci julli gi passé bul xam ñaata la marché marché Zeng bokk na ci marché yi gën a mag ci Sénégal. yaa ngi may dégg commune Pikine Nord commune dama dama ne la commune Pikine Nord tolluwaay commune Pikine Nord amul benn tolluwaay fii ci Sénégal arène national si sunu suuf la nekk ah 14 banques mu ngi mu ngi ci tali mag bii deux stations est-ce que yaa ngi dégg marché zinc bokk ci marché yi gën a mag ci Sénégal kon moom Amadou Diarra moom moo war a jël responsabilité am liñ koy voteel moom mu ñëw defar ko mais duñ ko duñ ko fal mu toog ah croiser les bras marché bi di takk ëllëg ñu bàyyiwaat ko nii. di jël na ah. match bi lakkee ba léegi ñëw na. man gisuma ko no gisuma ko man moom gisuma ko wax dëgg yàlla man gisuma ko. moom ñëw na si guddi si. non man loolu man gisuma ko quoi ndax man moom lu ma lu ma tegul sama bët rek man mun ma ko gis quoi sincèrement parler gisuma ko waaw waaw. Diop waaye Cheikh naka affaire yéen ziar ah su ma jeexee du ma la dugal. waaw one food to the السلام عليكم Thank you.

métti na de fekkee bu ne métti na ku ne fu métti yem tey métti na ko lii yàlla yemaleeg jàmm ak salaam rek mbuus rek ba pare saako yi dañ koy sottiwaat waaye comme comme état bi état bi ñu ngi ñëw fii di xool da ngay bàyyi ba ñu xool ko ba pare non non fi mu ne wala lii la jël lii la ñuy jël quoi acca mbokk internet yi ki ñuy taxawal tamit eh, maanaam suñu lakkale si la bokk salaamaaleykum papa. waaleykum salaam wa rahmatulah. tudd naka la. papa Ndiouga Fall. Mhm. yow suñu lakkale si nga bokk sa place. waaw sama place waaw. lan nga doon ay alimentation laa doon jaay ko waaw. noo ko yëgee. non après ay 5 heures muy jóg di julli quoi lañ ma woo sama euh, dëkkandoo bi moo ma woo quoi ne ma place yi mi ngi lakk joge na sa côté quoi après ci laa ko yëgee quoi waaw. bu doon xayma tey lu nekkoon si bi place si ah, si wàllu alal ñaar lay non mënu ma ko conseillé mais amul problème quoi parce que comme kenn gaañu si rek amul benn problème parce que alal ji yow yaa ko liggéeyoon ko bi ngay commencé tuuti nga doon am quoi yàlla suturaal la ba mu ñëw nekk ay millions quoi. mais man bi ñu ma ko yëgalee dama ne bu lépp lakkoon sax amul problème quoi parce que loom looy jàmbat am na keneen ku la boo xoolee presque moo ci bagage yi moo lakk ko mais lépp lakkul quoi mais am na ñoo xamante ne si presque lépp lañ lakkle quoi mais ma sant yàlla quoi defuma benn kii quoi. benn bi place bi ak euh, kii euh, dépôt bi laa yoroon quoi waaw toll nii gannaaw ngeen lekkale ba léegi état ñëw na wala kenn ñëw wax ak non yi ñëw nañ def nañ sonn nañ parce que loo xam ne depuis trois heures la amoon ba léegi ñoom ñi ngi fi parce que ñoom ñoo ñu gën a sonn sax parce que boo xoolee lii problème bi rek mooy xëy na ndox muy yu manqué yi quoi mais ñoom effort yi ñu man pour fay lakk gi def nañ ko quoi. vraiment euh, ñoom ñoom jàmbale jéem nañoo ñoom it di xool pour laaj euh, surveillant mais comme mag la te dafa feebar ñëw na mais mënul tenir lu yàgg après dafa delluwaat quoi. lan moo waral man xaw ma ko xaw ma xanaa ndogalu yàlla quoi ndogalu yàlla waaw. ok merci waay. salaamaaleykum. maaleykum salaam. tur bi la. Saliou Balde. waaw yow da nga bokkale ñi nga xam ne ñoo lakkale fii si marché bi. waaw fii sama mboq yi sama xarit yi ñoo fi lakkale man moom sama place ngi si kanam fii mais jotul egg quoi jotul egg sama place waaw. lakk ni mu demee. waaw man nag fekkuma fi quoi ndax man yëmbal laa dëkk daanaka ay vers nee nañ 3 heures du matin 4 heures ah mais man moom fekkuma fi quoi vraiment. sama gars yi ñoo boo fi ay 7 heures ma ñëw ñu expliqué ma ko quoi bi ma wooyee ma ñëw gis affaire yi demee nii quoi marché bi biir marché bi yëpp lakk quoi waaw affaire bi doy waar sax. sa xay li nga xam ne nii si marché bi lañ nekkoon lan doon jaay. waaw ñii ay cuuraay la ñuy jaay ñii alimentaire la ñuy jaay. Alpha sama xarit bi place dafa lakk ba jeex dépôt bi mu ngi si kanam tamit dépôt bi dafa lakk ba jeex. pour perte si lool lool boo ko doon xayma ñaata la woon. non loolu moom ndax daanaka il faut nga calculer wala nga def inventaire nga doog xam mais mënoo koo xam quoi vraiment. responsabilité yi mairie bi la wala tey jii mën nañu wax ne ñu commerçant yi jaay si marché bi la. non mënu ma ne te kenn quoi ndax vraiment damay jàpp na ndogalu yàlla rek ndax nit di nga tëdd sax yow génn àdduna ak yooyu lépp dañ koy delloo si ndogalu yàlla quoi vraiment mais mënuñu ne responsabilité nit quoi pour l' instant instant bi vraiment. ok jërëjëf waay. maaleykum salaam. Sayer ah Sayer waaw ci cuuraay la si ñoom wax Sayer cuuraay. yow tamit suñu lakkale si nga bokk. man yàlla def na nag eggul ci man bu dëgg yàlla waaye foogoon naa ni tamit bokk naa ci ndax biñ ma wooyee ni ma marché bi lakk na ku nekk day foog ni tamit yaa ngi ci nga bokk moo tax ci laa jógee suma kër ma daw bi ma ñëwee xool yàlla def na affaire yi eggul ci man waaye nag yàlla def na am na sama doomu ndey yoo xamante ni ci biir marché bi lañu nekk dañ cee bokkaale leen laale ku mel ni mas mi dépôt la ko nii da cee bokkaale da cee loraale léegi moo tax ma ñëwoon taxaw ci di ko jàppale ne di ko jàppale pour bagage yi xaw a defaroo yooyu noonu xam nga mais affaire yi moom métti na trop wax dëgg fa yàlla métti na trop wax dëgg yàlla gars yi moom buñ la ko waxee ne métti na trop trop trop trop ñu ñu ci bokkul sax xam nañ ne affaire dafa métti wax dëgg yàlla ndax gis nga ay loo xamante ni si deux ba léegi muy tàkk xam nga mais sapeurs yi tamit macha allah ñëw nañ tamit def ci li ci war ndax noonu la a ñaaw ndax ñun ñi nga xamante ne si bokkuñu ci mën nañ ci gën a loru ndax mën nañ ñëw tam fekk ñun ñëpp ci nekk seen place ñëpp ku nekk boo yibbee doo fekk dara mais nañu sant yàlla bu baax te xam ne mbiru yàlla yàlla rek moo sañ lii waaw li nga xam mbiru yàlla yàlla rek moo ko sañ mais ñoo ngi sant bu baax nag ndogal yàlla kenn mënu ci dara lu war na am la mais nañ ko sant yàlla bu baax nag te xam ne nii la mënoon a demee mais nañ ko sant yàlla bu baax waaw xam ne nii rek la mënoon a demee dëgg fa yàlla ndax ma xam nga moom gars yi moom bi benn la ko parce que bu kenn yàqula rek ñëpp a yàqula moo tax ku ci nekk tamit il faut mu ñëw teewee ko mën a taxaw gars yi xool affaire yi nu mu métti métti bi ku nekk sant ci boppam loolu la quoi mais ñoo leen di baax di leen bëgg jërëjëf. bi. gannaaw bañ euh, lakk bi waaw man de dama doon tëdd di nelaw ba ay 5 heures du matin yooyu si lañ ma woowee daal ma koy annoncé waaw ah, ba ñoo ko woowee rek si laa jëlee sama moto daal di taal ñëw ba ma ñëw nag gis marché yëpp commencé tàkk gis bi gars yi fees fi del ñun ñëpp ñu jaaxle ndax ñun ñëpp am nañ fi ay place am nañ fi leneen leneen boole ñu ngi fi waaw ah, mais gars yi moom li ñu jaaxle moom tey kenn xamul nu mu trop wax dëgg yàlla waaw. Ah, xayma tey euh, a toll. ah bëri na wax dëgg yàlla bëri na de ndax man ñaari place yi nga xam ne ñoom laa xaw a jàkkaarloo te ñu doon tàkk rek bu si nekk moom boo ko xaymaa li fa nekk ëpp na 15 waaw loolu moom xam naa ko si place bu nekk waaw rawatina nag yeneen ak yeneen yi nekk si biir marché bi nag calculé ko waaw ak dépôt yeeg yëpp tàkk man mii sama dépôt dafa lakk waaw ñafe na ma ñëw laal daal mais sant yàlla bu baax waaw mais dépôt moom laal na ko daal waaw laal na ko waaw. bi. waaw man moom yàgguma fi lool nag mais c'est première fois ma fekk ko fi waaw mais nag temps yi tamit si koor gi tàkkoon na fi fii nii si côté bi quoi côté essence tali mag bi am na benn boutique bu doon tàkk foofu loolu moom fekkee naa ko waaw. responsabilité bi kan la bi moo defawul marché bi wala waaw euh, liggéey bi boo xoolee des na quoi liggéey boo xoolee des na. ndaxte dafa bëri ay courant fil yoo xam ne dañoo dajalante si kii bi daal bëri fi trop waaw à tout mën naa jékki-jékki rek laalante bu ñu laalante mën na indi ay problème ci marché bi looloo waral yëpp man jaakaar naa ne loolu la wala kooku bant yi nekk ci marché bi bëri fi marché bi amul organisation daal ni ñu ko defaree daal baaxul baaxul quoi vraiment waaw. maanaam état wala lii di maire yi euh, maanaam ñu pour ñu dimbali leen yéen ñu nekk ci marché bi. waaw ñi xamante ne nii dañ say yàqule seen alal bu fekkee mën leen a ndax ñu mën a jugaat ndax amaana tey ji seen xaalis lépp lañ jëloon investir ko si lépp lakk ba jeex wala ñoo xamante ne dañ jër ay bor jox leen ko ñu war leen a fay te gars yi duñ dawal compréhension dañ lay taxaw à tout loolu quoi ñu jàppale leen boole ko defaraatal ñu suñu marché ba mu gën a normal daal ba ñu gën a nekk sécurité suñ tëddee suñ suñ xel mën a dal quoi. dégg ngeen nguur gi gannaaw marché gannaaw ba lakk bi amee. non non man dégganteegu ma ak ñoom responsable yi seen responsable yi képp koo xam ne kenn kenn si nga xam ne ni dégg dégg nag ak nii di euh, nekk si bi. non man moom instant bi déggaguma si kenn quoi vraiment déggaguma si kenn. Mhm. Mhm. ok jaajëfaa ok taw feex. Thank you. xale à chaque fois laa koy ku ko génne mu ñuy changer lumière bi saa lumière ni vide na teeloon teeloon Thank you.

aco mbokk internet yu wasaare société gis ngeen gannaaw lakk bi nga xam ne nii lakk bu métti la am na fii si marché Pikine marché Pikine waaye tamit nga xam si marché Zinc nga gis nga xam ne boo gisee lii li ngeen gis image yi ngeen xam ne euh, alal yu bëree bëree bëri bëri yàqu na mu métti lool lool lool lool lool lool waaye comme ni koy waxee responsabilité les responsabilités sont partagées peut-être mun nañu jàpp ni lii di mairie bi am na si part de responsabilité. maaleykum salaam. Cheikh Tidiane Ndiaye. agent maire Pikine Nord. alors sànq su may su may bu commencé lii di ay interview xam ngeen ñi nga xam ne jàpp nañ xam ne wax ne budget moom toll si huit cent millions mhm. donc moom normalement waroon na commencé ba xam ne lii nii kat bu ko taxawoon tuut mën na bañ a am waaw maire def na lu mu waroon def def na na leen indil leen projet yu leer nañ pour tabax fii quatrième étage jaaykatu jën yi ci suuf jaaykatu tis yi ci kaw ñeneen comme euh, tailleur ci kaw a noonu ku nekk jël sa place mais bu mu ko indee dañ ci nas affaire politique ñu ne affaire bi affaire politique la comprendre ñu refuser carrément bañ moom nag ëpp leen doole te dañ koo dénk mairie bi da leen day proposer askan bi bu ñu nangoo mu def bu ñu nanguwul du ko def voilà foofu noonu la situation fi demee mais bëgguma dégg kuy wax ne faute maire la lépp lu ñu waroon def def nañ ko ndax heure bi bu fekkoon ne nangu woon nañu heure bi doon na fekk fii pare mais terewul aussi tamit chaque année dinañ dugg fii si marché jën yi yaa ngi dégg euh, indi eau de javel indi lépp lu ñu war a indi raxas marché bi ba mu set xool li ñuy yooyu yëpp ñu raaxaat ko ba mu nekkaat au top ñu dem mais lii moom dogal yàlla la ñëw na Euh, maire mënu ci dara. léegi gannaaw ba lii amee comme ko waxee ndogal yàlla na moo a dellu ginnaaw. Mhm. léegi maire lan moo doon taxawaayam fi waaw luy taxawaayam mooy que mu continuer si projet boobu mu nekkoon rek jéem leen proposé euh, jéem a defar marché bi maire moom loolu mooy devoir am buñ ko nangoo. ñu defar ko buñ ko nanguwul nag euh, temps mi moom mënul wañ wañ loxo nit ñi pour defar ko waaw man loolu laa gis ko Wirklich viel, wirklich bu baax de. benn naa nag fi nii xam naa ñoom lépp lu ñu mënti bëgg rek mooy maanaam euh, lii di état du Sénégal jëm leen dimbali bu baax a baax parce que ñoom fi mu toll nii soxal nañ ko euh, salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam. ah man Matel laa tudd Matel Sow ah, lakk bi tey xew. ah metti rekk metti na lool ndax ay borom kër yu yaakaar am seen uh, alal def ko ci di ci dawal seenu njaboot yàlla dikk nii ah yàlla na leen yàlla jox li leen remplacer li te mu bañ fee amati waa metti na de. ñun de fii leen dëkk waa man xàmmeetuma sax marché bi wax dëgg yàlla xamatuma sax palaas yi metti na torop lu ci waay mën ci lu baax rek nañ leen ci jàppale te yàlla tax. xam nga lan moo ko waral. non wax dëgg yàlla nag ñi fi dëkk sax xamuñu ko xam nga nag moom du doon sedd ñu ne dañ fi boyal ah waa nag tàngaay moom ah yàlla rek moo xam moom yàlla na fi yem daal. jërëjëf euh, dégg nga suñu yaay ni nga ko waxee ñoom tuuti la même chose ah ñëpp kenn xamul ba léegi maanaam fu mu toll nii lakk bi la moo ko waral euh, parce que jàpp nañ la plupart ba mootul euh, branchement yi nga xam ne nii ñoom peut-être ñoo koy ñoo ñoo koy kii salaamaaleykum kilifa yi salaamaaleykum maaleykum salaam. tur bi naka la. man Mouhamed Tine. Mouhamed ñu yàqule fii si nga waaw sama place mu ngi nii. man sama place mu ngi nii kay tàkk ba jeex. mënoo wax ni euh, tey bi mënoo wax nan la demee. Euh, non mën a guñu xam nag ak exactement nan la demee ndax fale euh, nee nañ daal ay une heure matière la tàmbale mais man ay quatre heures lañ ma woo téléphone wax ma ko ñu ma waxee ci laa ñëw ma fekk place bi place bi jàpp bi ma fekkee bi ma fekkee place bi jàpp man am ma ci benn pexe. mais li des mooy xam naa di jéem a def ay pexe rek wut ay ndox di di di sotti même place kii sama xarit la encore place am nii la dem nii la demee dafa lakk mbéjee mais mais nag mënuñ ci dara yàlla moo ko dogal rek. Mhm. lii di ma saw bu baax a baax waaye tey jii boo doon xayma tey jii xaalis bi nga xam ne nii perte nga ko euh, si alal si si wàllu fii nii la ñaata nga wax dëgg bëri na de trop bëri na xam nga bagage cuuraay yi dafa diis dafa diis dafa seer xaalis bu bëri lay nekk mënuñu ko xayma actuellement nii mënuñu ko xayma biñ ndax même xaalis sax amoon na ci biir même du nekkul loolu mën a wax kenn. waaw xanaa sant yàlla bu baax rek. xaalis bay nekkoon si mm, waaw am na xaalis bi fi nekkoon moom ndax rek mm, bagage bi yàqu na bagage bi moom jeex na mais xaalis moom am na xaalis bi nekkoon ci biir ma sant nañ bu baax nag wax dëgg ndax bu bu neexoon yàlla ñu mu jël suñu bakkan yi waaw. léegi ban message nga jox état leen si. ah maman waa marché bi ñëpp ñoo ci loru man man nañ nañ jàppale waa marché bi yëpp rek. waa marché bi yëpp ñoo ci loru amul kenn ku ci mucc ndax même ñi ñi lakk bi laalul sax mënuñu liggéey tey ñu ngi fi ak ñun kon xam nga ñëpp waaw nañ nañ nañ nañ jàppale ñëpp rek defaral leen seen marché bi xanaa waaw. na lool mais bu baax baax a mu doon loo xam ne dafa mu toll nii na lool lool lool lool lool. yaay na laa jël salaam wa rahmatulah. Euh, lakk yi tey nangu métti rek lakk yi daal moom metti rek loola ci waaye wax daal lu dul métti na rek metti na waaw. am place fii sama bokk samay mbokk sama goro sama borom kër doom moom place bii nga taxaw fii ñu taxaw di wax ni moo ko moom. daanaka day des tuuti. génnewul dara gis nga lépp ay feeraay la génnewul dara mais nag sant yàlla comme que loolu la yàlla dogal. ñuy sant rek dellu sant yàlla rek waaye xam nga ne borom kër bu jógee ci tabaski sa place mel nii ak li ci sa ginnaaw metti na soo reetaane sa ñu xam ne metti na mais nag jàmm nga xam ne yàlla lay may. lu mu la may lu mu la ko nangu it xañ na am na leen lu mu la dencal lu ëpp loolu suñ delloo sant ko daal dina la remplace lu ëpp loolu mais métti na ay borom kër yu ndaw doo nga fi nekk kii moo am métti la gis nga place am bi nii dara génnul ñii tamit ñëpp suñuy wëlëre lañu kenn génnewul dara waaw mais loolu la yàlla dogal. Hmm. ba léegi tamit euh, comme ni nga waxee waa sapeur tamit ñoo ngi def liggéey euh, bu mucc bu mucc ayib euh, di da fexe tout ba ñoom tamit dem a sauver li nga xam ne nii moo des ay ay marchandises ñoom ci gannaaw bañ leen woowee ba léegi ñoo ngi fi di def gis ne liggéey bi nga xam ne ni waa sapeur ñoo ngi koy def mu doon liggéey bi nga xam ne liggéey bu rafet la mun nañu wax ni depuis lakk bi bu commencé ba léegi ñoom ñoo ngi si ba léegi di fay bàyyiwuñ benn yoon ñoom tamit xam naa ni sonn nañ lool lool lool lool lool ba léegi ba léegi ñoo si liggéey bi di liggéey boo xam ne nii liggéey bu mucc ati waaye daaw sax nekk liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la gis ne moom desati léegi ngeen di gis dafa mel ni ay saaku buy yu bëri bari la woon waaye buy yi moom fu mu toll nii moom tamit mën nañu wax ni ay borom ñàkk na ko métti na trop trop trop trop trop comme ni mu ko waxee woon sànq respons les responsabilités nag sont partagées mun nañu wax ni euh, nii di maire bi am na si part de responsabilité waaye ñoom dégg nga leen ñoom jàpp nañ ni fexewoon nañ avant élection yi di bëgg tout ba defar liir marché bi waaye ñii di commerçant yi ñoom jàppoon nañ ni ah, yooyu affaire politique la ba ñoom ñu lankoon ne maanaam duñu bàyyi peut-être peut-être période période tabaski boo xam ne tombé woon nañ ko looloo waroon ñu bañ waaye tamit am comme comme ni ko waxee woon sànq ñii euh, di commerçant yi mën nañ si en responsabilité parce que branchement clandestin yi nga xam ne ñoo ngi koy def tamit loolu tamit mën na indi lii parce que comme ni ko maire bi waxee woon sax bu nekkoon seddaay la nga jàpp ne peut-être ak yooyu mais tàngaay bi waaw léegi loolu la liy lakk ni ak ak Dakar buy yàlla <laughs> mu doon lu méttee méttee méttee donc moo ngi noonu xale yi gis na bu ñu ñëwaatee si beneen côté bi nga xam ne salaamaaleykum Pape ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bu baax a baax a baax soo yéen tamit coono gi déplacement beeg yëpp ñu ngi leen di massa bu baax a baax a baax. borom place bi ñu taxaw fi. waaw mooy borom place bi moom maa ko moom waaw maa ko moom. fii kay dara desul eh, moom la ñu doon jaay moo nekk moo moo weex noonu. waaw waaw moo weex noonu waaw. massa bu baax a baax. yàlla yàlla may xol dañ koo delloo lépp ci yàlla parce que boo ko delloo feneen fu ci yàlla da ngay juum da ngay ci yàlla xam ne moom moo ko fi teg moo ko fi indi moo ko fi teg moo la ko joxoon moo ko jëlaat boo ko defee boobu doo ci sonn waaye boo waxee leneen rek da nga ciy sonn wala am leneen bakkaar waaw. yàlla may lu ëpp li nga amoon. Eh, gannaaw ba lakk bi nu mu demee carrément mënu ma ko parce que man 5 heures da lay ma woo ñu ne suñu place yi lakk na sama benn xarit ma woo 5 heures comme fu mu ne nii mën a ñoo xam lan moo fi xaw daal réel la la waaw parce que fii mu gardé rek moo la mën a wax lii moo fi xaw. te fu mu ne ni ñun jotuñu gisee gardien parce que bu ñëwee fu ne talu ñu leneen lu ay laaj affaire yu mel noonu waaw. tey maanaam àll yi nga xam ne pet nga si bitig bi ñaata la war a doon. fu ma ci xayma la mën ma ci ci xayma lu ci perte moom loolu moom parce que xaalis lekkit yee parce que xam nga dañu taatoom ba tabaski gaay jaay dajale xaalis bi war a fay gay nañ ñëw dem tabaski ji ñëwaguñ ñi nga war a fay ñëwaguñu. affaire yooyu moom mënoo ci xayma daal lii moom yéeme na daal yéeme na daal. sa dëkkandoo yi nga xam ne yéen a yéen a doon di jaay ñoom tamit lan la doon jaay dafa mel ni fii gis naa fi ay ceeb euh, am na fii nii ay légumes la ñu fi doon jaay nii taabal légumes li si lii nii ay ay dépôt buy dépôt Dakar buy donc fii ni fee moo nekkoon suñu grand magasin nga xam ne foofu lañu doon jëndee lépp lépp taal takk ba mu jeex taal fii moom. tey jii ban ñaan ngay ñaan lii di gouvernement pour mu dimbali leen. Ah, dañu ñaan ci ñoom pour ñu dimbali rek ñëw premier defaraat fi nit ñi war a ñëw léegi nag loolu passé ñu xam ne ñu fi nekkoon yëpp daanaka daal ñoom tey delloon ci miskin kenn yoratul kenn yoratul parce que loo xam ne di laa bett moom kenn yoratul ko amatul tey mbenn dimbal wala mm, day coow moom xanaa ñu jàpp ci lu bare bare bare waaw. Ah, ñu daal di continuer xool beneen beneen côté bi nga gisee fii naqare naa sax jàll ñu xool maanaam beneen côté bi nga xam ne nii tamit lakk bi maanaam mën nañu wax nii bàyyiwu fii dara dara dara dara dara dara dara maanaam boo koy xool sa xool day fees sa xool day metti sax parce que lii tey jii damaa mënul gëm yàlla dëgg moo tax nga mën a nangu lii. fi am moo ngi noonu moo ngi noonu mbokk internet yi ba léegi yéen ngi si wasaare société ñu nekk ak yéen euh, fii si marché Zinc marché Pikine waaye gis ni ba léegi tamit nga xam ne nii ñàkk nañ si lu bëree bëri seen seen ay euh, marchandises salaamaaleykum sëñ bi. waaw ça ah, maa ngi nii rek sant. ñu lay bu baax a baax di la ñaan yàlla yàlla may la xolu muñ euh, na ngeen dundee lii fi mu toll nii. ah affaire moom métti na trop quoi. bilaa ay deux heures du matin la commencé après pour premier dama tardé à venir quoi moo tax. mais sant yàlla rek sant yàlla bu wér. boo tey ñaata ngeen perte fii la. waaw ah, li moom bari na ay millions la de waaw ay millions yu bari la kay bëri na trop kay waaw mais sant yàlla rek sant yàlla. lan ngeen doon jaay man jaay man gaale bi laa dëkk. ñoo dëkk ñoo dëkk si côté waaw maa ñëw pour dimbali leen ko jërëjëf yow borom baax nga. waaw si jàmm. baal ma rek jégal ma caméra bi waaye. waaw jégal ko non mën na bàyyi feeñ. dafa nekk liggéey dafa nekk si liggéey. ok amul problème jërëjëf. xale yi rek continuer xool. salaamaaleykum sëñ bi. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, bu baax. a baax lii leen dal nan nga dundee situation bi mu toll nii. kii mais waxoon naa ba pare jégal ma ko rek bilaay affaire bi day yàqu quoi. Mm-hmm. waaw. baax xale yi gis nga affaire fu mu toll nii moom catastrophique na trop trop trop trop boo gisee ñoom da ngeen comprendre xam ne wax sax fu mu toll nii euh, maanaam mënuñu ko. recevoir parce que munoo nekk si yenn naqar yi nii am ñi nga xam ne yi ñëw pour xool ay feeraay xaw ma nu mu demee noon xëy na moom meñ na si benn waay benn waay benn <laughs> benn waay boo wut boo wut feeraay xay di wëri ni mooy tu daanu nat métti na trop trop trop trop trop moo ngi noonu mbokk internet yi wasaare société gis ngeen li ngeen xam ne nii dund ngeen dund ngeen ak ñin moo ko doon loo xam ne lu mett la nekkee lakk bi nga xam ne amee na fii si marché Pikine gën ko xam si marché Zing bokk marché yi nga xam ne nii marché yi bokk na si marché yi gën a mag Sénégal booy wax ni Pikine bi mu nekk Pikine rek xam nga ni maire am na si ay responsabilités parce que tamit marché mënul xatee nii ngeen ko gisee nii pour sàppoo dugub sax c'est tout un problème waaye tamit ñii di commerçant yi mën nañu wax ni am na si ay part de responsabilité boo gisee ah, maanaam marché bi nu mu menoo te ñoom sax seen ay kat ñoo ko yëkkati nee nañ branchement yi dafa bëri trop trop trop trop pour nga génn sax c'est tout un problème donc loolu yëpp doon la nga xam ne nii amaana que moom moo amal moom moo waral lakk bi nga xam ne nii métti na lool lool ñu ne perte tamit xaalis bi nga xam ne wala sax ñu perte tamit xaalis yi nga xam ne nii mun nañ wax ni takku na lool lool lool peut-être euh, lii di état du Sénégal dina leen dimbali bu baax a baax parce que ni moom métti na waaye tamit war nañ si bàyyi xel defaat marché bu baax a baax il faut que ñun euh, Sénégal ñu bàyyi waxu waxu politique parce que des fois maire day ñëw pour defar la nga jàppee ni kat li muy wax ni kat élection yi mu tombé moo war a mu bëgg defar marché bi ba yow tamit nga yaa ne du ma ko defar wala tamit am ñu faree fee wala ñu faree fii naan non maire dana a ndax loolu yëpp il faut que ñu a baax di xool maanaam la mooy intérêt général parce jàpp nañ si information yi ma am bëggoon na defar lii di marché bi mais ñoom jàppoon nañ ni manaam maire bi li muy wax yëpp ay waxu politique la des fois tamit état ñëw pour changer leen pour pour defaat lii sécurité yi nga xam ne ñoo ngi am si marché bi commerçant yi lànk bañ na ñoom duñ fi jógee parce que jàpp nañ ne buñ déplacé woo dina la fa fekk jaay dina la fa fekk donc il faut que bàyyi si xel bu baax a baax waaye état bi tamit xam ne liñ toll ni marché yi mel ni bëri na Sénégal te à chaque fois nga dégg ñaan marché tàkk na marché tàkk na te ba léegi te kenn trouvé yi ñoo si ñàkk seen alal du état donc il ko am si quartier bu may ne Pikine ak si yenn marché seen seen marché yu mel nii mu doon li nga xam ne lu doy waar la doy waar mbokk internet yu wasaare société nii la indiloon tey fii si marché Pikine lakk bi nga xam ne amoon na fi ànd ak fi sama cameraman lii di Khalil le fou de Wassare TV di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah